Euh, Daouda maa ngi lay nuyu man la Waly. waaw waaw waaw Waly ñu yow nga bokk ak ndey ak euh, ak ki nga xam te rek moom moo di euh, Papito Kara lan nga ñu mën a indi ay leeral. si li ñuy dégg ne dafa ñàkk bakkanam si gaal gi. waaw waaw waaw dafa ñàkk bakkanam ñun ñu door a yëpp information bi léegi. Mhm. xam nga petit keroog dimanche lan àgg. Mhm. mais ñoom bin bin bin àggee su suñ jarbaat bi. mooy xale bu ndaw bi. Mhm. borom gaal gi moom sama jarbaat la maa ngi yaayam ñoo bokk nda ñoo bokk benn baay. Mhm. borom ki doon dawal gaal gi. Mhm. ñoo bokk benn baay. Mhm. yaayam. léegi euh, sama sama doom mag bi ki nga xam ne maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak baay doomam moo moo yoroon numéro Papito Kara ñu yaakaar ne Papito moo ko jox numéro moo ko jox téléphone bi da koo aal loolu la wax. nee na Papito moo ko aal téléphone bi muy wootee léegi nag ñu jàpp ne ñun àgg na. moom mu dalal ñu loon nañu àgg nañ si jàmm dara jotuñu ñun ñëpp ñu ngi si jàmm baax. waaw waaw waaw léegi nag démb daal internet bi di jënd ay feuilleton defee defee amul amul dara lu ñu ci reen nan la ñuy gëstu loolu. Mhm. waaye ndey mbil gi yor gaal gi sama jarbaat bi yor gaal gi. Mhm. waaw moom ci boppam tey moo moo moo woote jox ñi audio yi leer nañ audio yi sax ñu mun ko tasaare. Mhm. yi ñu yi ñu audio. ñu mun ko jox kenn. wóor na yàlla waaw audio yi nee na nee na na Peugeot Kara ak ak yeneen quatre personnes ñoo ñoo ñoo décédé. yeneen quatre personnes yoo xamante ni ñoom ñoo àndoon. waaw ñoo àndandoo ñoom nag sedd gi moo leen gaañ. lëbu yi defuñu dara. sedd gi problème mu sedd la moo leen moo leen rey. Euh, kon gaal gi àgg mais ñi ñi si ñàkk seen bakkan. seddaay bi àgg na ñi ca nekkoon xiifu ñu defuñu dara maanaam ñoom ñu wàññeeku sedd gi moo leen rey sedd gi. est-ce que est-ce que. waaw waaw sedd gi ak ndogalu yàlla. alors Daouda waaw mu am beneen information boo xamante ni bu ñu sukkandikoo euh, suñu yenn naataangoo yi nekk ci Dakar Actu euh, dañuy wax sax ne euh, Thiané benn caane Gueye benn magam bu jigéen dañoo jokkoo ak moom muy dalal seen xel ne leen Papito amul dara la ko dal mu ngi ci jàmm àgg na ci jàmm loolu aussi yow lan nga ci ndax boobu la ñuy door a yëg information bi ndax ñu mun ko loolu da nga a wax. Mm-hmm. waaye léegi bi ñu ko mm-hmm. ma nga nee di jooy saa ko jaaree ñu dem jël ko ñu dem. Mm-hmm. ndax saa yi a yëg nii. waaw waaw waaw kon nag noonu la a tonte. waaye kooku ñooñu nekk fi lay sëy moom. départ Papito Kara yéen en tant que famille bi ndax jotoon ngeen koo moom moom ko woon kenn moom da koo nëbb moom ndeysaan ñun moom moom ba naa gën a àgg nan sax moom doon dañoo yéeme waaw kontaan nan waaye amoon na lu ñu naqay mhm. waaw lu toll ne Papito Kara jaar ci gaal moom day day xaw a yéeme lool mhm. waaw information bi ndaka la ko famille bi ndaka la ko famille bi jotee aussi ak euh, vraiment réaction yi waaw moom koy réaction bi métti lool lool lool lool lool lool tena ko wutul léegi ñëw ñunu boobu léegi xamuñu xamuñu dañoo mel dañoo dàccu nekk na yàlla mhm. mënuñoo buusa mètre na yàlla boobu léegi ñu ngi waaj pour dem waaye xamuñu nan la dañoo jaxasoo. dëgg la. waaw war que démb si euh, ne ma Papito mu ngi ci jàmm parce que man ak yow ba ñu mujjee dégg rek ne ma bi. nee naa la ki yoroon gaal ki doon dawal gaal bi sama jarbaat la. dëgg la. yaayam mm. mm-hmm. la. Mm-hmm. waaye kooku nee na moo ko téye ci loxoom ba Papito wàññeeku. ndeysaan moo ko téye ci loxo ba mu sedd guy nee na ba ba léegi nag ah, da doon da doon tuuri xewal da jooy daal moo tax mënu ko woon a wax kenn waaw nekkul woon boobu ba da doon jooy. d' accord daaw daaw waaw. ndax jot ngeen a am koor bi koor bi ndax am nga si information aussi. non non non koor koor moom moom amaguñ ci information. information. déedéet déedéet déedéet ndax moom moom bu ñu waxee loolu ñun dañoo xam nga rek da ngay ba yenn questions yi doo ko mën a laaj. waaw waaw waaw moom ak booba bi ñu waxee loolu rek nag dara coupé. waaw waaw Issa yi nee na ñu ko bëgg a jotaan nii. Hmm. waaw waaw waaw. kon waaw waaw waaw ñu ngi nii di waaj dem waaw incha allah. d'accord Daouda maa ngi lay gërëm.